dimanche maa ngi gis ña may woo appel ak audio ak aadamo bu mu amati ajimaas li nga def xam nga ko ba pare nga bëgg topp ci wax ji di ko wax di ko wax di ko wax man su ma la waxee dama divorce parce que yow sama xarit nga sama genn wàll nga ku ma laal chaque jour nga jug di histoire ma bañ nga dégg ko ci mbedd bi di ma mere ma wax la ko ne la bul dem di toog di ko wax fenn bis boo demee nag ba réseaux sociaux yëpp bind ko bu boobaa bu la neexee mën nga cee wax parce que loolu garab feru téesante xamoo ma ci te doo ma ci xam ba keroog ngay dee bu mu amati nag bu ma dugalee dugalati ay appel yi appel à trois yi bu mu amati li ma la wax wax naa la ko ba pare man samay wax du day jëm ci kaw yi soo ma dégg may wax ci kaw wala dara lii yëpp man su ma la waxee dama la war a wax parce que sama xarit nga war naa laa wax dama am problème sama ménage dama divorcé yow war nga koo yëg mais waroo toog ci télé bi di wax di di wax comme si que mënuma comprendre ni nga defee yooyu yëpp ma jël lu ma neex ak lu ma naqari teg ko parce que xam naa ne defal nga ma lu baax ma jël yooyu yëpp muñ ko ngay demaat topp ci benn kaa di wax di wax di wax di wax rek bu yàggee di nga juum tamaag yow dinañu yàqoo wala di nga yàqu leneen leneen wala di nga def leneen loo xamante ne boo toogee du la neex du ma neex donc nañ yemale fii wax ji metti wala nga jànnaxe ba wax loo xamante ne nii man sama làmmiñ bi waxu ko te même su fekkoon dama la ko wax boo toogee sax yow waroon ngaa waxee neneen mais ni nga waxee tey yoo xam nga ne waroo waxee noonu nga def ma lu ma naqari ba pare ajumaas di woote naan sama bopp ma la gënal du bañ naa la pour yow setal sa der parce que nit ñaa ngi lay woo nga takkal ma waa dinaa nangu takk amul benn problème pour yow nga set ndax loolu du sa problème man sama problème la man maa am problème dinaa gore loolu ma nangu lépp lu ma waay teg dinaa ko nangu jërëjëf Adji Mass jërëjëf jërëjëf xaw ma woon ni nag jikko bii mu ngi ci yow man awma lu may ragal ci àdduna barki Seydina Muhammad waaye lii la ñuy wax rek yàlla baax na mënoon ngaa jël sa téléphone bi rek yàlla na yàlla àtte Adji Mass ku ma waxoon tey sa émission bi di nga toog di wax ci man barke alxuraanul karim du ma ko gëm bu ko bàyyi noonu ndax man duma ko bàyyi noonu Adji Mass yow da yow Adji Mass kon wéroo man ngay xam naan duma ko bàyyi noonu mel ni man yow dama laa wax dara Adji Mass yow sa digganteeg sa tëraayeelu bàmmeel ah Adji nag yaa neex nag yow yaa neex dëggantaan jaay yow ku ma waxoon tey boo toogee ci plateau bi di nga tudd sumbulu barki Seydina Muhammad sama bakkanu doom maam jaara mi nga xamante ne moom laa gis Allah bu ma fekkee njariñam duma ko gëm du ko gëm te noonu nga def pour setal sa der noonu laay def pour setal sama der nga waxuma la tey ma la tey yónniwuma la. ma la bañ naa ko ba nee naa la buñ ko déggee ci sa làmmiñ jaw ajimaas loolu wax naa la ko ba mu dugg ci sa nopp ba ba dem maa ngi la koy insister di la ko wax. sama bopp ma la gën a du bañ naa la dëgg la wax nga dëgg ndax man damaa nangoon damaa damaa naroon a sëgg lépp tuuru sama ko waaye dootuma ko nangu. duma sëgg lépp tour sama kaw message yi nga may buux parce que loolu nga programme bi pour génn wax ko ne man maa la yónni ndax gis nga commentaire ndax ñëpp bi ma la waxee ñëpp a ngi naan yow man maa la yónni da nga ne déedéet kenn waxu ko kenn waxul ne man maa la yoon yónni man ñëpp xam nañ ne man maa waxal sama waxu bopp suba dinaa leeral lépp wax ne man mii maa waxal sama waxu bopp ngir nit ñi xam yoon ma la wala yooyu yëpp da nga ko fàttee <laughs> baax na milieu média euh, média bi nee naa ko comme man maa opté pour feeñ. dama jooy ba sonn si voix vocalu Adjimass. mu fi mu ñun mës na taxaw ni Adjimass day fen wala maas tey day jaxase wala Adjimass tey wax dëgg man sincérité ci lay dee te mën sama nit moom moom nee naa ko lu ma dal ci àddina moom ma ci dugal ak sama xol ak sot ndaxte tey bi may wax ci biir émission bi ku gis ni ma waxee xam ne avec la cœur laa waxee bis boobu boo ma gisee nga xam ne sax nekkuma. parce que sumbu lu ko mës a neex ci àddina neex na ma lu ko mës a naqari naqari na ma koo waxee sax dañ naan toujours Adji mooy génn mooy mooy roobu avocat am Adji Mass mooy génn mooy so ba kañ say sama placeur bi ma toog am na vidéo yoo xamante ne nii amoon na fi ma toog euh, benn resto taxaw defal ko ko ni Soumboulou kenn mënu ko yàq ci réew mi mais ki ma doon sëy dafa woo kii carrément ni ko yii moo rafetul yoonam nekku ci moom mun na wax am na gémmiñam am na ay mbokkam bu bëggee waxee na dem ñooñu waxal ko mais comme xam na ni man lu ma wax ci dëkk bi ay bal la te du ma jàdd jàddal ay wax du ma yokk ay wax du ma fen ci ay wax ba tax na lépp lu nga xamante ni nii dafa bëgg mu jàll daf koy daf ma koy confier pour ma jàllale ko. dëgg la na doppul dina jàpp ko moo tax muy def noonu. mais mbir mu bu tollee fii tey on se dit la vérité nit mun ta weesu lu dul nit. non tey ku war a génn génn sama noonu rax si sax wax. wala ñoo xamante ne tey bu nu ma taxawoon xam ki ñuy waxal jàkkaarloog man parce que Cheikh Abdoul Karim duñu wax man ndax maa leen gën a réew quatre-vingt-dix-neuf mille fois. ak ma leer ak maas Guèye. di ma yàlla yàlla ni ci njëriñ takk. du yoon de nga toog fi nga toog dafa metti. billaahi dafa metti on se dise la vérité.